di ab dog fi zikril kaba'iri ci tuddu bakar yu mag ya wa zikri mawadhiha ak tuddu seeni birep day wax nak bakar yu mag ak cër yi ya nga xamne ci lañuy def bakar yu mag yoyu qad qasama sedelena al faqih aji deg ci fiqh kaba'ir al asina bakar yu magi way moy nya il hishrina jëm ci ñaar fukk tarattuban ci toftalo neena dañuy wax ne bàkkaar yu mag yi dañ koy def ñaar fukki xaaj su ko defee nag wayaf xalu dana def albaxda lenn la jamixul jism mboolem yaram wa du nax tisaasin ci ludul ak jagoo xinda ahlil fa fañooñ dégg ga wal baxdu lenn la nag moom xadd xus yi sa jagleleef na ko bil axdaay ci cëriya kalxal bi ni ki xol wal farji ak pay bilam ci daayin ci lul benn werante dañuy def bakkaar yi mag yi ñaari xaaj benn xaaj bi am cër yu ñu leen jagleel nga xam ne cër yooyu ñooy def bakaar yooyu xaaj ba ci des nag moom jëmm jee koy def rek ñu ne waa ji def na ko waaye dis ko moomali benn cër bàyyi moroom ma kon yenn bakaar yi dañ koy moomale yenn cër yi yenn bakkaar yi nag moom kenn du ko moomale benn cër bu ko waa defee rek ñu ne waa ji def na bakkaar bu mag yi nga xam moom lañ li yenn ci yi man nga ko misalé xol xol amna yuñ koy jagleel mom lay bëgg wax saw kay nonu ak ñaari loxo yek gimiñ ak dana ko wax légui motax mu né ne alxujubu aw tumal kibru top walhasadu wal hasadu ak kañaan maariya ànd ak gistal dana ñu tabbi faqa dong fil qalbi ci xol laa lu xol amna yenti Bakari yu mag yo xamni ci xol la nek ben ba moy naw sa bop moy naw sa jëf lolou ëpp na def bakar bu reey la ñaaral bu moy reey reey moy japp ne am nga daraja martaba ke itam am nako ko ya ko ëppale daraja sa yo jappé nak né li yalla sak am ci kenn kenn ko fété kaw ci daraja rek boba am nga reey boba ak reey nek na ci yow ñetteel bi nag mooy kañaan kañaan mooy am ko am xéewal te yéene woo ko xéewal ga dangay ngay kay mu ñàkk ko su fekkee ne nag waxi woo ko ci saw làmmiñ jéemoo ko loro ci say cër ca xol ba rek la nekk tey sax nekkam nekk sa xol neexu la boo sañoon yéene ko ko waaye daal sa xol nga mënta walbati loola kenn du la ko jàppee waaye nag kañaan nga boo ko waxee mbaa nga jëfe ko rek mu daal nekk bàkkaar bu rëy rëy bu mat a tuub ngistal nag mooy jëf joo xam ne jëfi alaxira la mooy jëfi ak topp la nga def ko te yàlla kese kese taxut saa yoo jëfee jëfi topp goo xam ne yàlla kese kese taxut rek loola ngistal laal na ca yent yi nag muy aaw naw sa bopp ak rëy ak kañaan ak ngistal yenti bàkkaar la yoo xam ne ci xol la nekk xusta na nga jagleel asina njaaloo bil farji ci pay maaliwaatin ànd ak jëf-jëfi waaloot fa fadhuma na nga leen wattu xudita yàlla na jubaleef la li siraati jëm ci yoon wa xudita li siraati daaneel way la ak ñaanal la yàlla gindi la teg la ci yoon wa dane ñaari bàkkaar yu mag yi muy njaaloo ak jëf-jëfi waaloot dañ koy moomale sawukaay hmm. njaaloo ci sawukaay lañ koy defee jëfi waa nag jëf ju ñaaw la joo xam ne mooy góor war moroomum góoram jël ab sawukaayam def ko ci buntu suufub moroomum góoram loolu nag jëf ju ñaaw la ju waa lóot daan def moom it bakkaar bu mag la te sawukaay moo koy def sadixatun sàcc wal xatul ak rey yuuf xalaani def na leen defe bi ñu ni ci yaari loxo ya la khairu du lu ñoom ñaar du na may jurul fen yaari loxo yi am na yaari bakkaar yu mag yoo xam ñoo ko jagoo te mooy sàcc ak rey sàcc ak rey bakkanuk doomi aadama loolu loxo moo koy def xat xus ci sa jagle leef na shurbul xamri naan sàngara bil fami ci gimiñ summata qadfu muhsanatil hurri noonu lañ ko bindee boo ko firee noonu day firi topp xas jigéen ñañu feguli gor ne nekkoon alxurru tey doon gor su góor soo defee nag sumata xadful muxsanaati dal taara muxsanaati muy firi topp xas jigéen ñañu feguloo mooy rekk jigéen ñu fegu ña nga xam ne xamuñu dara ci ay caaxaan ci mooy yàlla ba noppi na nga leen xas ci tox tànk caaxaan te mooy njaaloo waaye su boobaa nag alxurri bi ci topp moo lu neex a toftal ci almuhsanaati waaye teew noonu la ko yax yi indee ndaxam al aharru dana firi ka gën a rafet waaye ñu andi ca al harra u mel na ne bari wu ci muy jigéen ne sax al aharru boobee xëy ñu mën ko jam xoo al xurru al xurri ña ay sang waaye mel al xurri ci xëyin gi daal mel ne ne na foofu waaye mayees naa bàyyi rek téere bi noonu xam nañ gisaa benn ya xam nit daa wax ne ñaari bakkaar yu mag yi gimi ñu koy def mooy naan ak jigéen ju fegu ju baax xamuti caaxaan nga di ko tuumaal ci dox tank caaxaan te moy njaalo loolu bakar bu rëy la ba tey gimiñ def kon nan sangarak waxal jigen ju bax ju xamul caaxaan waxal ko loko te waxal moy diko tumal ci njaalo yoy yar batay gimi ñakoy def te bakar yu mag lañu mat nañoo maytu wa akulu amwal yatama ak lek alali jirimiya war ak riba wa ak jaw namimat ak rambaaj fajitani ban nga leen moytu shahadatu zori ak sere neen mahal yamin and ngiñ la axni dana jublu al ghamosa ladib murale kat ci bakar ladib murale kat ci bakar dañ koy bañu firé ladib murale kat ci sawara ndax taxu ta dem sawara ndax manes na koy jéggal fahzu na nga roy ahli din ñoon diine manam gimin dal mom bakari ci aju da bari bat nañ juroom ñett yaar yi nga waxoon ci waywe muy naan sàngaraag xas jigéen ju baax wax ko loo ko wërta waxal loolu yaar rek la nga boole ci lekk àll jirim muy ñett nga boole ci lekk riba muy ñeent nga boole ci jëw muy juróom rambaaj muy juróom benn seere neen seere neen mooy seere loo xam ne wóoru la doon tombe am sax waaye ba koy seere yow boobu xamoo ci woon lu wóor loolu seere neen la ba juróom ñaar nga boole ngiñ li nga xam ne day nuurale ci bàkkaar te muy ngiñ lu doy waar mooy waat ci yàlla loo xam ne ko ni amut mbaa da koy sikki sàkk dong daal di koy waat ci yàlla lu muy sikki sàkk dong wóoru ko mbaa mu wóoru ko ni sax du dëgg far ko waat ci yàlla loolu ah, mën leen tuddee al yamin al juróom ñett ñu aju ci gimiñ amal lati ndaal ya nga xam xamat matale nañu جميع البدن مبولم يرموا فأربح نينت لنو عند الفقه فأجي ديغ جفق الفاتيني كي أجي خيلو دعام نغ ينت بكار يمغ يو خمني بكو واجي دفع نيني واجي دفع نبكار بمغرق واي رنكو مومالي بن جير باي بجي دس حقوق والدين تموي دوك نياري واجر والفرار أقدو من شدة الزهفي تتاروك مس مسيم يفريا نعتك يلنا لسوري النارو سورا salisuha aj ñettel seen ifsadu malil muslimi modi yaq alali julit rabi fa aj ñentel seen tarku salat moy baye julli fof xam na nga deg ene yenti bakkar yi nga xamne ajuul ci benn cër bayyi morom ma ba ci njëkk mooy ñàkk topp say waajur mooy say waajur ëpp naa def bakkar mag batay ba tey julit ñi di xare yéefar ya nga bokk ca julit ña ba noppi daw bu fekkee ne day yéefar yi ëpp ñu ñaar ci julit ña dana araam yow mi dib julit ngay daw bu fekkee ne yéefar yi dañ leen ëpp ëpp leen ñaar ca nag kon moom boo dawee itam doo ci am bakkaar waaye nag boo dawee nag moom te wër laa daw moom ni ko alquran waxe dafa rëy lool wa man yuwallihim yawma isin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyisan ila fi'atin ko daanele faqad baa bi ghadabin min allahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir lol dafa dis yaqala li julit yaqala li jaambur bakar bu rëy la ndegam yaa ko tay su fekke teyoo ko nak du don bakar bu reey waye du te nga fay borom ndax alali jaambur mom tay ak baña tay len ci yamale su la borom baalu rek nga war ko fay batay nak nag julli bañ ko julli ba waxtu wa jall te amoon ben ngant kok bokku na ci bakar yi mag yi ñeenti bàkkaar yi su ko moomale benn cër bàyyi moroom ma bu ko nit defee rek ñu ne nit ki def na bàkkaar bu mag ba ci njëkk mooy dog ñaari waajuram maanaam ñàkk topp ñaari waajur ak dawee ca xare ba te warutoon a daw ak yàq jullit ba ko ñeenteel mooy yeexe julli ba waxtu wa jàll ci lu ngant faslun li ab dog la fi tawbati ci tuub fa tawbatul insaan tuubu nit ka fawran ci lu gaaw wajabat war na na daamatan ngir réccu xalaa dunóobin ci ay bakkaar xabuxat yooy ñaaw nañu mooy yooyu bon nañu xaysu xasaa foofi xam ne moye na bisaaka ci loolee dajjlaa di borom màgg ga laa xaysuma adara du fufi lor na rek am amwaali ci alal ya aw ahlihi wala wa kërëm aw wala ab dundam aw bil badani wala ci yaram wax kama xakaa naka mu ko nettalee alxibru fóoreja alyadaali yu te muy alyadaali alfatinu koy aji xellu nit daal moom daanaka ñàkk jàdd yoon bañ a def dara lu ñu tuub yóbbu ci doomi faral di la ca na di gaaw rek nga def te def dang koy reccu itam nak metit lu ko ci kaw doon moy yalla waye bu ko reccu rek metit lu ko ci kaw man day amon na place bu baax ak liggey bu baax waye sama moy yalla gi taxna ma ñak sa place ba wala alal ju bari ja amon sa moy yalla gi taxna ma ñak ko ki bu kuy naan sangara wala muy carte lol man ko yobbe wéré dig yaram ak ñak alalam man ko yobbe tago wa gëreum yu non nak bu dé reccu bakkar yoyé ni ki naan sàngara gaag carte yaa yooyu du ko teg ci kaw rek metti na ma ndax ñàkk naa ci saa alal ñàkk naa ci saa soxna ñàkk naa ci saay bokk amee naa ci wér déedéet da koy teg ci kaw maa ngi maa ngi doon mooy yàlla yàlla mu màgg mi moos aaye ma lii ma doon ko def waaw loolu lay rëccu te metti lu ko waaye bu mu ko teg rek ci kaw na ko dal ci wàllu ordina dong bil ixtiraafi ci tudduga bàkkaar wa bil istixfaari ak ci jéggalu ga aydan ba tey mina dunoo bi ca bàkkaar ya wal iksaari ak baril min at-tadarruh ci toroxlu wal inkisari aku mok fi hali rukhsatin ci birum ak yolom wa fi dhirarin ak ci ak loru mo taqidan mbir mu mi aji fas hawdi ñaka delom ila ma'siyat jëm ci ak moy madama li fek saxna hayyanti aji musjaran lum man di don dalay wax deug deug tuub ga ne la moy nga nangu man day ma togn sa bop ma def lu def saxaw jéglu nak ci yàlla ndax yàlla baal la nga bari toroxlu ak damm sa bopp ak mokkal sa bopp noo xam ne ngaa toll ci yomb noo xam ne ngaa toll ci jafeñ-jafeñ daal moom nga tuub fa saasa te baril toroxlu baril ak mokk jëm ci sa boroom fas yéene itam mooy yàlla googi nga defoon doo ko defati mukk mukk mukk mukk li fekk yaa ngi dund danga koy rëcc doogu ci bañ ko defati mukk mukk bu la sa bakkan gañee nag mbaa saytaane mbaa àdduna ba nga defaat bakkaar ba itam bu mu la tax fasiyeen do ci ti mukk mukk donte bakkaar bi dang ko def ay yoni yoni yon ci bis bi itam rek yon boko defé rek bu mu la tax da nga tuub tuub gu delu wat ci yalla ndax yalla mën naa def yon bobé nga tuube mujj ci yalla xéti la nga bañ koo defati mukk mukk faslun di ab dog la fi zikri maratibit tawbati ci tuddu darajay tuub manam tuub dafa def ay degare degare yoy bëgg tuddu faxudda na nga lim sabaxatan juróom ñaar minal maraati bi ci ay daraja li taw ba tin ñel tuub xuz jàppal juróom ñaar yooyu fusta yal na nga tuufu bil manaaxi bi ci ngëneel ya